bisimila mbokk internet yi dal leen ak jàmm Sénégal daal daanaka yuuri kese la dese ndax booba moom toj na li fiy xew ci ay kawteef doy na waar bés bu jot nga gis bu gën a yéeme bi fi jot a jàll lu naqaree nit tëri xew na fi aawa ba sàmm na ñaareel ba ba ca des di ab baay bu sel doom ja ñu ne deeta waaye beneen doom jógee fële jàpp baay ba rendi ay dossier yu tàng jiir moom la waa direct news fësal jëm ci wàllu ay faat yu ñu amal ci anam gu doy waar loolu yëpp bokk ci liy firnde ni ñàkk kaaraange gi ñu doon ragala ci digg mbedd yi dugg na ci biir kër yi daaj fa bane faax maa la ko wax lii nag ma nga xewee ci biir ëttu kër journal bi ñëwaat na ci anam gu yéeme gi nga xamante ne awa jàpp na ko ndaw soo xamante ne ni jëkkër ja da ko façon yéen a takk ñaareel mu jam koy paaka ba mu ñàkk ca bakkanam mbir maa nga xewee ca caaroy ca geneen wàll ga ba tey ci biir kër yi asuwaay moo tàggoob soxnaam naqar ak métit gu mu am ci boobule tàggoo moo waral ndem mënatu ko woon muñ mu daal di jël xale bu góor bi nga xamante ne moom la amoon ak ndaw si yóbbu ko ci ruq bi gën a sori ci biir kër gi daal di dagg sidit ya xale leen nettali yàlla bu ñu dof la kilifa ga waxoon daal mooy dëgg Sénégal daal jot na nag ñu sangu ko ndëppal ko sotti ko saafara génneel koy sarax mani la ca Tiwaawan nag la fa xew a fa des ab waaye jàpp baay ba tër ko jël paaka teg ca pot ga rendi ko xatiite loolu doyul mu tàqale bopp ba ak baat ba ba noppi jël bopp ba tëmbal ko ci teen allahu akbar waaja ba ko yoon tegee loxo di ko laaj ana waral jëf ji la mu lay nag mooy mook baay ba dañoo jote te li la <laughs> bu doon ne koo jotel ci wàllum suuf tër ko ni waaji rendi ko jël bopp ba sànni ca teen yi nar a fees danañ bëri de ci réew mi fii la bët yem Tactic TV ni ngi leen di jaajëfal